ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci teewaayu presse bi waaye aussi di wax ni maa ngi jël kaddu à la fois au nom des étudiants yi nga xamante ni ñu ngi fi depuis mardi passé di opérer une grève de la faim waaye aussi à la fois au nom de la société civile maa ngi tudd Pape Abdoulaye Touré nekk le coordonnateur du mouvement Sénégal notre priorité di xam di leen xamal ni le coordonnateur national de du collectif Ñoo Lank est derrière moi Mourtala Seck FRAPP France dégage mi ngi fi LCIS luttons contre l'indiscipline au Sénégal mi ngi fi Africa First mi ngi fi donc organisation yooyu dañoo ñëw pour jàppale ndaw yi nga xamante ne depuis mardi passé ñu ngi fi nekk di xiifal waaye ñu bëgg a yëgal ñëpp ne jàng dafa metti ñi fi nekk di grève gën gaa gàtt def nañu fukki at ak juróom-ñaar wala juróom-ñett pour mën a yegg si niveau bii ñu yegg si su fekkee mosuñu redoubler fukki at ak juróom-ñett. benn autorité toog ci bureau climatisé géré na carrière ak ay avenir doomam ba pare toog ne du leen sélectionné loolu du dëgg du yoon. étudiants yii di xiifal au lieu que ñu def licence ñetti at comme nu ko loi bi waxee la loi 2011 05 du 30 mars 2011 relative à l'organisation du système LMD loi boobu dafa ne licence ñetti at nañ koy def waaye ñii pour des lenteurs administratives ils ont fait la licence quatre ans. dans un état normal nee nañ quatre ans sax huit mois presque cinq ans dans un état normal étudiants yi dañ leen waroon a dédommager dans un état sérieux étudiants dañoo waroon yëkkati ay millions ne leen at yu ñu leen xañ ci ay lenteur administrative am leen nàmpaay waaye autorité yi defuñu ko étudiants yi tamit laajuñu nàmpaay parce que dañoo bëgg a jàng ñoom lenn rek nañuy laaj nañu leen sélectionné système LMD boobu moo waxaat ne étudiant bu ci am cent quatre-vingts crédits licence mosoo redoublé mosoo dem rattrapage am moyenne 15 mi ngi fi moyenne 13 ñu ne la duñ la sélectionné au même moment am ñu dem ñu mosoon redoublé ñu am moyenne 10 ñu leen di sélectionné administration bi ñëw pour la première fois ne quota lay sélectionné c'est scandaleux jël nañ loi bi tegee ko ne indi benn réglement intérieur rien que pour écarter doomu góorgóorlu yi loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Moussa Lo doomam nekkul UVS et pourtant il est le coordonnateur national de l'UVS c'est parce que dafa xam ni UVS teguwul ci yoon doxul moo tax mu jël doomam yóbbu ko feneen Cheikh Omar Anne doomam nekkul dans les universités publiques nekkul dans les universités privées du Sénégal dem leen ngeen laaj ko doomam fu muy jàngee parce que dañoo xam ne système bi doxut comme de système bi doxut ñun ñuy jël suñuy responsabilité heureusement pour ñun ba suñu parents yi teel a parce que d'habitude étudiants rek ñoo doon xeex waaye tey gis ngeen fi suñuy yaay parce que suñuy yaay elles ont compris que ni ñun lu ñuy xeex c'est pour ñoom c'est pour màgg ëllëg tekki taral leen yóbbu leen ñu aji màkk comme yaay yu baax yëpp yu nekk ci réew mi mënoon nañ dem di agressé mënoon nañ bokk ci ñuy dem ci stade ci nawetaan di rayante mënoon nañ bokk ñuy dem fi nga xamante ne mooy ci làmb yi di agressé wala di këf ay perruque jàmbur on ne l'a pas fait c'est parce que dañoo bëgg jàng am suñuy lijaasa jëriñ suñu bopp jëriñ suñuy wéyjur jëriñ suñu réew loolu lañ ñu bëgg a xañ ça ne repassera pas que ça soit clair moo tax ñi ngi jox ñi ngi wax ni depuis mardi bi passé ba léegi ñi ngi fi di grève de la fin du Cheikh Omar Anne le ministre de l'enseignement supérieur du Moussa Lo le coordonnateur national de l'UVS waxuma sax ñu taal seen oto ñëw fi mais ñu yëkkati seen téléphone woote pour s'enquérir de la situation de ces étudiants qui sont la depuis mardi et par ailleurs ñu ci bëri ci ñoom évacué nañ leen de onze évacuation ba léegi yëngatuwuñu bougé wuñu Moussa Lo maa ngi koy dégg mi ngi yóbbante démb naan pression bi sanara passera kenn mënu koo teg pression et du bouger yota je prends à témoin toute l'opinion ça c'est un discours d'irresponsable Moussa Lo ne mérite même pas d'être un fonctionnaire de l'État parce que un ah fonctionnaire de l'État ah da nga war a xam lan mooy sa mooy sa warugal nekk ministre étudiants yi nekk fi di xiifal nga toog sa bureau fële ca jëm ñaajo naan su ñuy waaj dee dinañ dem lekki loolu c'est un discours irresponsable su nekkoon seeni doom du ñu wax discours yooyu moo tax comme dañuy weguñu ñu joxuñu ñu cër respecté wuñ ñu ba jur ngi nii ñu ngi fi toog ñun jeudi bii di ñëw dinañ dem marché vers le palais de la république pour je le dis bien aajowul ñuy dugal lettre d'information aajowul ñuy def dara parce que nous sommes des citoyens sénégalais comme tout le monde dinañ dem yóbbu lettre yëgal président de la république son excellence monsieur Macky Sall que ni am na ay doomu réewam yoo xamante ne depuis mardi passé ñu ngi fii toog di xiifal te léegi ñu dee bés bu ci waxul. et comme te ñun dañoo jàpp ni président yëgu ko dinañ ko ko dem yégal parce que un président sérieux mënul nekk au courant de ça sans pour autant mu jël ay responsabilités moo tax ñun ñu ne dinañ dem foofu. pour euh, jébbal ko bataaxal bi le jeudi prochain et nous donnons rendez à toute la presse et à toutes euh, les promotions de l'université virtuelle du Sénégal parce que j'en profite et foofu laay terminer ñi nekk UVS promotion 6 promotion 7 ak promotion 8 bii ak ñiy waaj a ñëw muy 9 suñu jàppee ni mucc nañ ci lii ñu ngi nax seen bopp lii bés bu jàllee ak promotion cinq bi c'est fini pour eux donc toog seen salle de classe naan bokkuñu si suñu yoon nekku si loolu je pense que c'est une erreur qu'il faut corriger moo tax ñu ngi leen di jox rendez-vous ñoom ñëpp nañ ñu ñëw gunge pour ñu dem palais déposer une lettre pour yëgal président suñuy jafe-jafe wasalaam